salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di ñaan sunu borom di ñu defal jàmm fu ñu mën a nekk sunu xikma bi nag tey day wax ne al muaqul xaqiqi huwa man ajaza an ibadati rabbihi wa laysa man ajaza anil xarakati xakim bi wax ju am solo la wax nee na handicap dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ni daa mënta jaamu boroomam ki nga xam jaamu yàlla tën a ko ci daal kooku mooy handicap waaye nekkul ne ki nga xam daa mënta yëngatu mooy handicap léeg ñu gis koo xam ne benn loxoom dafa am problème walla benn tànkam walla benn bëtam walla ay noppam neexul walla mu am beneen eh, laago ci yaramam ñu di ko ko xeebe mbaa di ko ko xoole wala di ko ko sabote am ñoo xam ne it sax di ko ko yërëme rek dëgg la jar na yërëm ndaxam waaye fañ koy joyal jëmale ci yërmande àggu fa ndax léeg-léeg nga gis ku mel noonu te day farlu lool ci diggam ak boroomam waaye gis ci wet gi nag koo xam ne ay cëram nii ci saayir gisoo dara lu ci sikk waaye am xelam matut ndax xel mu di mooy yàlla mi la bind moom la ne la doyewuma la dara lu dul nga jaamu ma nga lànk nanguwoo koo jaamu fasu yéene def li mu bëgg te li muy bañ bés bu set nga nekk ca kooku dëgg-dëgg mooy handicapé kooku la ñuy war a wax ne mooy eh, ki nga xam daa manqué le ndax yaram moom aw xott la woo xam ne dafa war a àmbale rek li di ruuxo su fekkee ne nag kon moom mi emballage bi moo xotti ko tuuti wala mu am sikk sikk soo mën naa bañ a àgg fenn fi waaye ki li gënoon a metti mooy ruu mi muy àmbale moom bu amee sikk kay foofa lañ war a jooye loola lañ war a métitlu loola moo war a nekk ak jaaxle kon daal xakim bi wax ji mu wax dëgg gu wér la tam solo lool mooy daal handicap bi dëgg dëgg dëgg nekkul ki nga xam ne dafa ñàkk a mën a yëngatu waaye mooy ki nga xam ne dafa ñàkk a mën a jaamu boroomam ñu ngi sant ñëpp di gërëm di jégglu wasalaamaaleykum wa rahmatullah